média dañuy njëkkee ci problème mu Aziz Ndiaye ak soxnaam miis ñu ne dem na demul parce que takk na ñaareel je pense que histoire boobu jot nga ci. Hmm. ak naka nga gisee quand même Aziz Ndiaye ak ñaareelam. ah bien sûr Aziz Ndiaye euh, yaayam xam nga ñaata la. Hmm. yaayam troisième femme la. yaay Aziz waaw. deuxième femme bi génn àddina mu nekk deuxième sonn nag ci kër Baye Alla Ndiaye mu ñol ko ba jur fa Aziz ak maanaam jur fa Aziz am na mag bu jigéen moo ma bëgg di leen wàññi macha allah fii ku fi baax rek sa ndey a tax waaw euh, wujje mënta ñàkk te maanaam yëg naa ne takk na euh, soxna Aïcha Rasoul macha allah turam bu neex bi li leen ñaanal rek ñu dem ba am ay sët ci daraje Seydina Muhammad yëg naa ko d'accord mhm. ñu bari tey gis nañ leen ñu di ay boroomu xam-xam ci bu ñu ko mënee tuddee noonu taxaw ni sëy bi du dem maman Selbé lan lay wax ci loolu. ñooñu dañ bàyyi fen yi dañoo bëgg Aziz Ndiaye jox leen xaalis ba yàlla di rëdd noonu lañ fa defoon sëy sumbulu bàcc li ñu tag ko alxames àjjuma samedi ñu am ñu taxaw ñu ne ñoom sëy bi du am biñ ma laajee dama leen day am seetuma ko nag bu Aziz bi seetuma ko ma mhm. ko seetee naa la contacter ci kàttanu yàlla te am naa yaakaar ci Aïcha Rasul du xiif du mar tubaarikàlla kon nit ki li muy ut mooy jëkkër joo xam ne yërëm na la bëgg na la te Aziz lii kenn mësu koo gis mu def ko kenn mësul gis lii mu def ko kon maanaam incha allahu rabbi sëy bi day yàgg loolu par force la waxkat yi ñun nañ dese di wax rek nañ ñu wax rek génnewoo li nekk sa biir kër dem ci luqati sëyub jàmbur mënuñoo lijjanti seen sëyi ndey yi ba pare balaa ñoo luqati sëyub Aziz Ndiaye dañ dem luqati seen ndey nu mu doon seen baay d'abord ñoom nan la ñu juddoo d'abord xam nga bàyyi sa sa yëf te Miss day toog kat force Ndiaye Selbé nee na da ngay toog par force xam mu toog par dafay ñëw fekk fii aawo ku njëkk jural Aziz Ndiaye doom muy maam Binta tubaarikàlla dem nekk ak yaayu Aziz Ndiaye. nekk ak ay rakki asis Ndiaye yu jigéen ak yu góor nekk ak ay doomi bàyyi Aziz Ndiaye nekk fa maam Binta di bale di raxas di fóot di toggoo maam Binta bu muy dugg ci asis melul ni tey te dafa toog ba yàlla ubbi xéewal ba ñu takk Miss Ndiaye dugal ko ci kër gu bees tàq bàyyi maam Binta ca kër yaayu asis Ndiaye kon bu Aziz daal di joggate sax maam Binta joggate kii euh, euh, euh, Miss Miss day toog par force ndax ñu bëri ay wëllëre Aziz Ndiaye ñu bëri bëri xamuñu kër maam Binta man maam Binta koo teg ba may seeti Aziz ca këram kër Miss laa dem mooy foire bi ci suuf rek bi buntu foire baa ngi nii nii foofu la. fa ma yóbbu te boobu a ngi dund gis maam Binta kon Miss Ndiaye buñ ko indilee fukkit amul droit wax <laughs> <laughs> comme ku soj du ko def day toog force waxkat di nag moom nañu wax rek ni Miss Ndiaye puusul paasul mus Miss nga toog ca këram di gérer ci këram wujj ba mënta ñàkk ndax yaayu Aziz Ndiaye troisième femme la woon ñëw fekk fi déggal jëkkëram bëgg jëkkëram yore résumé jëkkëram deuxième femme bi yàlla def ci la ci gën mu nekk deuxième femme ba tey seen waajur dem ñibbi àjjana fekki Cheikh Ahmada Tijani fekk Seydil Hadji Malick fekk sëñ Babacar Sy kon maanaam Aziz Ndiaye yàq deram yàq la rek yàq sa loxo ñi yàqute alku rek ñooy taxaw di wax ci Aziz Ndiaye lu bon ndax def fi lu bon wax fi lu bon jumaay Tiwaawoon ji ma juddoo ba tey jumaay Tiwaawoon ji yeggut moom mu am xel am yéene li mu def ci jumaay Tiwaawoon ak lim ci récolté tabaxoon na ay kër wala mu def ci lu ko neex waaye dafa xool ne jumaay Tiwaawoon di yàggul eggul mu jël cent million dugal ci Ilimaan Lam jël cent million dugal ci tubaari kàll ñuy doog a woo ay am di jàmmam ba ñu récolté ay milliards kon Aziz wax ci moom yàq la danga koy gën a yokk waaye wax mënta wàññi mën na koo wàññi dara ndax dafa liggéeyal yàlla ba pare adduna bi yëpp xam ko ci Cheikh Ahmada Tijani xam ko ci al amin mi mi dogonte woon ak moom ak waajuram ak yaayam ak rakkam bàyyiwul kenn man mii suma ma soxla woon xaalis barke Seydina Muhammad tey jii bu ñu waxoon ku lekk xaalisu Aziz Ndiaye dee wallahi Eva kon tey duma fanaan ndax may na ma xaalis wax dëgg yàlla Baye Ndiaye lekk na xaalisam Eliman Lam lekk na xaalisam waaw mais ñi bàyyi mbojo mbojo ji rek attaques lu ci bari ci benn côté lañ koy def que Aïssa Rassoul xale la moroomu doomam la daf ko takk ba pare ci Aziz Ndiaye ak image bi mu di def yëfu xale. Mm-hmm. nga Seydina Mohamed bu muy takk Khadija Khadija ko magee plus de quinze ans mm-hmm. soxna Aïcha nag Seydina Mohamed amoon na soxna Aïcha de amoon na Aïcha bu ko neexee mu takk xale treize ans. man sama rakk ma bokkoon ndey baay paa ko takk mën na koo jur ba mu nekk sa tam te sëyal na ko ba amal ko juróom-ñetti bant maa moom ñoo bokk ndey baay loolu du dara kenn ku ci nekk boo sañoon boo amee 14 ans quinze ans ba 16 ans am jëkkër ju baax ju mel ni Aziz Ndiaye kon maanaam nañ bàyyi waxkat yi nga xam ne wax rek ndax xam naa ne balaa seen ndey di jokkook seen baay seen baay daa wax ba bëgg a moo tax ñu topp nit ñi rek di wax il paraît que famille boobu da nga leen xam bu baax a baax ci looy jëflante ak ñoom ku ci mel ni Aziz ak ay ay frère am. non Baye moo doon sama kóllëre Baye Ndiaye moo ànd ak sama kër ci Iliman ak Iliman Lam son frère. Mhm. mon petit frère. maanaam ñu ñëwoon ci jamono bi Balla war a bëre ak euh, kam bëreel ba doon roi de arènes. Mhm. jamono boobu laa fasante ak Baye Ndiaye kóllëre ndax boo bëgg naa Balla bëgg goo xam ne ku ma gis ku ñëw ne dama xaritu Balla Gaye laa dama lay bëgg. waaw man ba Gaye moo tax ma bëgg Baye Ndiaye ba yàlla def suñu diggante kóllëre Baye Ndiaye it bëgg ma lool présenté ma Aziz tubaarikàlla may dem këram kër Aziz Baye Ndiaye di ma jël si di ma yóbbul ay nitam ma di leen seetal waaw loola yàgg na yàlla def nag seen papa bëgg ma ma gën koo bëgg def ko papa muy Baye Aale yan na ko yàlla xare àjjana rahmatullahi alayhi ñu ngi koy ñaanal fa mu jëm gënal ko fi mu jógee kooku moom. ñooñu moom ku leen laal laal ma loolu moom yàlla def na ko dama leen a bëgg te fowuma ci réew ma ci nattu la samay samay nattu la ñu daal. parce que mënoo bëgg papa nga bañ doom te seen papa mooy sama papa ci réew mi bu dul paa bi paa Marcel mi gaañu nga xam ne bi may tabax sama kër gi moo doon euh, garder noo ma doon gardeel birig yi bañ xale yi yàq ko te ne kii jigéen la moo jënd kër di tabax bu leen yàq. ginnaaw paa bii ginnaaw ki ma jur muy Baye Cheikh Baye Ali mooy sama baay ak paa Marcel Biaye manaam ki nga xam ne nag moo doon def li sama baay di def li ma doon defal di ma yeewal xaru tabaski muy sëy moom sëñ Moustapha Sy mi waaw mais moom ñoom moom vraiment yàlla def na bëgg naa leen te du ma leen bañ.